boo dee wàññi nag benn benn yi nga xam ne ñoo war a fay alamaan boobu te ñu mën naa dem ba ci fukk ci teqale man ngaa jëkke ku woor ba noppi dem joteeg jigéen ca sawukaay ba dañ ko waxee woon bu joteeg koo xam mënees naa joteeg moom doon ci sax lam joteel day baxi ma nit ki am xar wala bëy bu dara génnu tit ndegam moo ko tey rek xam ko xamaatoo ko kenn forsiwu ko ca day fay ba noppi fay alamaan boole ci ñaareel ba mooy koo xam ne da koo tey génne mën yu moo xam ci laalante ci yaram la wala ci leneen doon sax xalaat xalaat bu yàgg la wala xool xool bu yàgg bu mën yu génnee rek bu war a fay ba noppi ñu alamaan ko lu may nag lu ko dal du ko daawul dal lam xamoon ci boppam mooy bu yàggalee xool mbaa xalaat it du tax mën yu génn bi yoon nag far mën yu génn am ñu ne kon alamaan bu ko war fay rek koy war am ñu ne itam faaw alamaan war ko ñetteel ba mooy wàcc yéene yu kooram bu yéene woon nag ci guddi gi daal di koy wàcc laata fajar di fenk mu dellu ko yeesalaat te wàccaatu ko moom dara nekku ca waaye nag su wàccee yéene ji ci gannaaw fenku fajar mënatu koo dabooti koor ga yàqu na mu war a fay ba noppi ñu alamaan ko rek ñeenteel mooy bu awale ci gémmiñam moo xam lam ci awale lu ruy la wala lu ruyut nit ki ab gërëm mbaaw xeer ba mu àgg fa ñu waxoon ne bu fa àggee rek koor ga dog na bu dee lu ruy bu àggee ci bëli ga bu dee loo xam ne ruyut bu àggee ci bàq ga lu mu jaarale ci gémmiñam ci loolu rek koor ga dog na ba noppi itam mu war a fay alamaan ndegam moo ko tey mu wuteeg lu mu jaarale woon ci ab noppam mbaa lu mu jaarale fenn fu bokkut ak gémmiñ loola bu dogee koor ga itam du tax alamaan war ca ndax dañuy jàpp ne lu mu jaarale ci gémmiñ ga na mu ciy amee bànneex du ci amee bànneex ci leneen lu mu jaarale fu bokkut ak gémmiñ juróomeel mooy mu wóor ko ne dog gi koor gi araam na umpale waru kafaar ga daal moo tax mu songu def lu araam li muy dog gi waaye wóoroon na ko ne dog gi moom lu araam la faw mu fay ba noppi ñu alamaan ko boole ci ca nga weesu woon daa umpale woon araamuk dog ga dal ne koy door dugg ci lislaam te yeggute jaxasoo waa lislaam waaye kii moom xamoon na araamuk dog koor ga loolu umpale woon kay mooy waruk fay alamaan bi juróom benneel mooy mu tey ko waccu ba noppi nag am lu mu ca wann doon ci sax wann ga ci rëcc la du tee alamaan war ko ca su waccoo wacc moo xam ne moo ko tey moom ba noppi am lu mu ca wann la mu ca wann mu tey ko ak mu ñàkk koo tey xam na ko rëcc ñoo yemoo waaye nag bu fekkoon ne fàttee tax menen daa fàtte woon ne ci koor la nekk moo tax mu wann lam wann ca wàcc ma kon moom alamaan du ko ci war juróom-ñaareel mooy mu tey ko soccoo lu mel ne xotti garabi koko wala xotti garabu saytoon ci ay jamono am na ay jigéen ko daa yéey ku ko ci yéey nag loolee nga xam ne mooy ndox ma nga muucu ko wann doonte sax ak rëcc la du tee mu fay ba noppi ñu alamaan ko boole ci takk-takk bi daal mooy xott yooyu bu ko sexee di ko yooyu nga ne ko koy soccoo ci bëccëg bi bu amee lum ci wann ci kaw tey mbaari ko rëcc dana fay ba noppi ñu alamaan ko mu wóoteeg nag su fekkoon ne fàttee tax fekkoon ne fàttee tax moom gis ko ci alamaan juróom ñetteel mooy ko taawil maanaam ko jàpp ne sañ naa dog kooram fekk nag fa mu ko teg dafa dëgërut day fu yamaaye yamaaye mel ne koo xam ne gis na weer wi mu wóor ko ne weer waa nga nee ba ko waxee nag àttekat ba nanguwut ay waxam mu daal di jàpp ne kon bu àttekat ba nanguwut ay waxam rek woor wóoru ko mu daal di bañ woor kooku day fay ba noppi ñu alamaan ko boole ci ndax juróom-ñeenteel mooy koo xam ne am na siburu su ko daan def ay génn di ñëw ak a ñëwaat wala bu dee jigéen am baax muy régal boo xam ne daana ko faral di dikkal mu jàpp nag na mu ko daan dikkale ba mu àggee ci bésub koor mu ne tey jii moom du ma woor ndax génn bu ma daan dikkal bis ne tey la ma daan dikkal waaw bu dee jigéen di mu ne bis ne tey laa daa gis baax te xam naa ne faaw daa koy gis rek kon duma ci woorante ñooñu ñaar koo ci xam ne loola tee na ko woor day fay ba noppi ñu alamaan ko doonte sax bu dee borom jënd ba nam ko fooge woon noonu la ko gisee wala bu dee borom regal ba noonu la ko gisee it tuutee rek mu fay ba noppi ñu alamaan ko rawante na kon nag ba gisut la mu foogoon di ko fukkeel te moo ci mujj nag ku dogu ne tey jii daay tukki daal di jàpp ne kon ndekam dogu na ci ne tey tukki rek sañ naa bañ a woor daal di bañ a woor nag ba noppi farul dem ci tukki boobee kooku faaw mu fay ba noppi ñu alamaan ko ndax dañuy jàpp ne fa mu jàpp dafa dëgërut donc ga mu dog koor ga bu fekkee ne fàtte rek la ñuy wax juubu mbaa ñàkk xam araamu dog ga mbaa da ko rëcc mbaa dafa tawil maanaam jàpp ne sañ na ko te fam ko teg moom dëgër yooyu yëpp fay rek moo ko cay war waaye alamaan du ko ci war bu misaal nag saye boo teel jàpp léegi li ñu tuddee ak tawilu al qaribu ak ak tawilu al baidu maanaam taawil gu sori ak taawil gu jege ak tawilu ci boppam rek mooy loola la muy wane ci taw nga bàyyi ko jàppe ko neneen ca biir bu ñu waxee nag baatub ak ta'wil fii njortu rek lañ ci jublu njortu lañ ci jublu bu dee njort loo xam ne am na fu mu ko teg fu dëgër a dëgër ñu tuddee ko ak ta'wilu alqaribu bu dee nag njort loo xam ne amul fu mu tegu mbaa fa mu tegu dëgërut ñu tuddee ko ak ta'wilu albaidu kon da ngay wax ne saa yu dogee kooram mbaa gannaaw ba ngànt sa dañee mu waroon a bàyyi lekk ak naan moom nag mu jàll rekk di lekk ak naan wala sax mu far bañ a woor lu mu ca def te teg ko ci kaw njort loo xam ne fu wóor la tegu loola kon fay rekk ko ci war waaye alamaan du ko ci war loolu nag misaal na ci yu bare bari bi ci njëkk wax mooy mu dog kooram ci kaw loo xam ne fàttee tax li ñuy wax ci wolof juubu moom juubu xam nga ne dañoo waxoon ne saa yu ko fàttalikoo daa daal di war a bàyyi lekk naan moom nag mu jàpp ne ndegam xës na lekk mbaa mu naan ba day fay rek moom mën naa jàll di lekk ka naan jàll googee mu jàll di lekk ka naan te tax ñu alamaan ko ndax fa mu ko teg wala ñu forcé ko ba mu dog kooram gannaaw bu forcé ko dañee nag àtte ba moo doon mu bàyyi lépp lu yàqu koor moom nag mu jàpp ne ndegam forcé nañ ko ba kooram yàqu faw day fay sañ naa jàll rek di lekk ka naan ba tey loolu dañ koy jàppee tawil ku am fu mu tegu ba fay rek koy wara waaye alamaan du ko ca war wala mu bàyyi ko ci tukki waaye ak sunate fajar fenkut xam nga ne kon nekkatul ci atib tukki ndax moom ñu bisi na te fajar fenkagut waaye rek mu jàpp ne am na sañ-sañu bañ a woor ba tee koo woor ba tey kon nee ñu kenn du ko alamaan wala muy tukki tukki boo xam ne matul doxub wàññi te dañuy sàrt ci tukki ba ñuy sañ a bañ a woore mu mat doxub wàññi waaye moom mu jàpp ne rek ndegam tukki ñu wax te mi ngi tukki rek am na sañ-sañu bañ a woor ba mu tee koo woor ba tey kon kenn du ko alamaan wala mu gis weer yi mu feeñ ci bëccëg bi mu jàpp ne buñ gisee weer yi ci bëccëg bi dañ koy delloo ci guddi ga weesu ba tax na kon moom fii mu nekk ci bëccëgu korite la nekk te xamul ne ci yoon su weer yi feeñee ci bëccëg bi dañ koy moomale guddi gee di ñëw nga xam ne bëccëg bi nga toll ba tey yaa ngi ci koor gi feeñ gee mu feeñ dañ jàpp ne guddi gee ngay séentu muy ñëw ci kanam moo ko moom waaye nag ku jàpp ne guddi ga weesu moo ko moom ba tax mu daal di war it tàmbalee lekk ak naan it fay rek koy war alamaan du ko ca wax wala mu amee janaaba ci guddi gi sanguwut sanguwut ba far suba jot mu daal di jàpp ne ndegam sanguwul ba suba jot bu wooree itam du baax mu daal di bañ a woor ba tey loola fay rek moo ko cay war waaye alamaan du ko ca war wala mu nàmpatalu ci bëccëg bi daal di jàpp ne addis ba nee na woon ahjama alxaajimu wal muxtajimu kay nàmpatalu ak ka koy nàmpatal ñoom ñaar ñëpp dog nañu seen koor mu déggee ko ne kon ndegam nàmpatalu na rek amatul koor say boobu lekk ka naan di wéy te fay bis boobu addis boobu ni mu dikkee waa Malik moom jàpp wuñ ko noonu dañoo jàpp ne daa bëgg wax ne kay nàmpatalu ak ko koy defal nàmpatal ga ku ci ne ku ca muy tuur rek dog kooram te du ko tey ndax kay def nàmpatal ga bu dee day muuc deret jàg gimiñam loola mën naa rëcc kooram dog te ñuy defal nàmpatal ga it bu deret ju bari génnee ci yaramam mën na koo yóbbi ak néew doole ba mu dog kooram ñoom noonu lañu déggee addis boobu moom nag mu jàpp ne ndegam nàmpatalu na say boobu jàll lekk naan ndax kooram baaxatut ba tey bu ñu amoon ñaar fukk juróom-ñeent ci weeru baraxlu asamaan ci lëndëm mënees xam dara ca weer wa ñu demee nag bëccëg bëccëg ba ñu yëg ne weer wi kat feeñoon na nga xam ne kon dañoo war a jàpp bañ a lekk bañ a naan te fay bis ba koo xam ne nag moom daa jàll di lekk ka naan ndax jàpp ne moom ndegam xamuñu woon dara ci weer yi ba dañ koy fay rek sañes naa lekk naan kooka kenn du ko alamaan ndax dëgër bopp taxut dafa jàppoon ne rek sañes na ko saa yu dogee mbaa mu ñàkk woor te xam ko teg dëgërut wala moo tudd ak taawilu albaayiru moom day fay ba noppi ñu alamaan ko boole ca mu misaale ko li nu waxoon léegi ku gis weeru koor yi ak bëtam ba mu ko waxee nag kilifa julli ña nanguwu ko mbaa àttekat nanguwu ko mu jàpp ne kon ndegam nanguwuñ la wax ba kenn du woor kon moom itam mën naa bañ a woor kooku su wóorul rek day fay ba noppi ñu alamaan ko ndax ndegam bëtam li ca te moom faaw war naa woor mu teg ca koo xam ne dafa am jëllub siburu wala jëllub asma ci misaal bu ko daan dikkal ñu àgg nag ci bis boo xam ne ci koor gi jàpp na ne ci la ko jël di dikkale te du ko mën a boolee koor ndax mu daal doog ne moom du ci jàppante koor day bàyyi bañ a woor moog jigéen ju xamoon na ko dikkale li ñuy wax régal ñu àgg ci bis mu ne tey du ma woor ndax xam naa ne tey jii ci la sama deret daan ñëw te dana ñëw ñaar ñooñu koo ci xam na nga foogoon na nga ko foogee noonu la amee du tee nga fay ba noppi ñu alamaan la rawante na nag la nga foogoon sax farut amee na nga ko foogee woon mu teg ci jëw bu alquran ne bu kenn ci yéen di jëw moroom ma ndax daa mel ne kuy lekk aw yàppam moom nag mu woor jëw moroomum itam rek ndax daa jàpp ne moo ki lekk yàppam ñooye moo ba kooram dog na dafa jàll lekk kanaan dañ jàpp ne war naa fay ba noppi ñu alamaan ko joo moom dëgg-dëgg daa bon dañ misaale ko rek lekk yàpp ko muy jëw waaye taxul nag mu doon ko dëgg-dëgg ba koor bu jëwee rek jàpp ne kooram dog na wala mu doog ne moom bisi bii faawu da ci dem tukki ndegam nag dafa dogu ci tukki rek mën naa bañ a woor fekk na déggagut sart ya nga xamee ne bu ca dajee mooy tax mu am sañ-sañu bañ a woor waaye rek mu bañ a woor bu ca boolee tukki de yi nga xam ne mu ko dogo woon noonu la ko defee kon alamaan du ko ci war waaye nag bu fekkee ne daa dogo woon ci ne day tukki ba du woor farul dem nag kon moom faaw ñu alamaan ko waaye nag fekkee nam ca dogo woon noonu la tukkeew nañu jàpp ne ta'wilul qarib la maanaam daa jàpp ne lii xel na ko te fam ko teg itam dëgër na